auusu billaahi samiil aliim min sharri seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammadin il makiin wa ala aalihi wa sahbihi sawi ridwaani wa tamkiin bismillaahi rahmaani rahiim saraftu xalbi maa lisaani li maddi xubbi seexu samaani alhamdulilah noo ngi sant sun boroom subhanahu wa taala di julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam di sant Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul di ziar Seex Ahmadul Maxtaar xalifa Seex Mahamadul Moustapha ak mboolem njabootug Seex Mahamadul Moustapha gépp di jaar la ci ziar boobu di ziar mboolem njabootug Seexul Xaadim gépp di jël sunum nuyoo ak sunub siyaar di ko teg ci loxob jëwriñ sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan di jëwriñ ci kër Cheikh Mahamadul di boroom pësteef boo xam ne yitteem jëpp mooy delloo si jëfi mag ña teg ko ci kanam ndaw ñi ngir ñu mën leen a roy moom la ak fàttalikoom gépp loolu rekk lay doon loole nag ab soññe la te am njàngale la moo xam ne sëriñ bi da ko fee bàyyi woon bàyyil ko fi mag ñi dañ àndoon ko moom di doxin woo xam ne noonu rek lañ doon doxee euh, nuy ziyaare bu baax sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak mboolem comité organisation bi nga xam ne ñoo nekk ci waajtaayu màggal gi waaye di leen jotale it nuyoo ak ziyaarab mboolem njabootuk sëriñ Ahmadou Mbacke gépp bàyyiwunu kenn ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne euh, moom lañ taxaw barki démb ci sunu kilifa sunu sëriñ waaye sunu wëttal muy sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Aliou nu ñaan suñ boroom yokk ay darajaam ak ay xéewalam ca barsaaxul muhammadiya di am mbégte ci jataay bii ñuy waxtaane kenn ci njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha muy sëriñ Ahmadou Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Ahmadou Mbacke Tindodi di koo xam ne buñ ko waxtaanee waxtaane nañ Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye waxtaane nañ mboolem njabootug Cheikh Mahamadou Moustapha gépp waaye waxtaane nañ mboolem njabootug sëriñ Touba kon dañuy wax ne bu ñu waxtaanee Serigne Ahmadou waxtaan nañ yoonu murit ndax Serigne Ahmadou Mbacké mooy doomi Cheikh Mahamadou Moustapha ak soxna xarit maam Serigne Ahmadou gane àdduna fii ci tuubaa ci Surra kër googee nga xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko sancoon nekkoon fa ci ndigal Serigne Touba euh, wax nañ na ginnaaw bi nga xam ne Serigne Ahmadou gane na àdduna foofu ca barab boobu ci sura euh, Cheikh Moustapha ba mu fay jóge Serigne Makhtar Bintaloo la rafaatale woon kër ga Serigne Ahmadou Mbacke di koo xam ne ku neex a waxtaane la waaye ku naqaree waxtaane la ngir Cheikh Mouhamadou Moustapha moo lëm mbiram ba kenn mënu koo waxtaane te daa sotteeku jëmmam ci jëmmi sëriñ du Mbacké ndax sëriñ Ahma Cheikh Moustapha moo ko dalal jàng moo ko yar ginnaaw bi mu jox ko ci mu joxe ko ci ay kilifa ñu jàngal ko ba mu demee ba wàcce alxuraan bind kaamil def ni ko doomi soxna yi defe bokk na ci kenn rek koo xam ne bañ ko tuddee nga xam ne sëriñ ma ku mata waxtaane la mooy sëriñ Basiiru moom sëriñ Touba. Cheikh Moustapha joxoon na ko ko mu jàngal ko yenn ci ay téere ginnaaw bi mu dem Mauritanie ba mu demee nag ba jàng mboolem li doomi soxna war a xam mu xam ko dafa dellu si waat Taïf ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mu tërbiya ko la nga xam ne moo mat a def ci kilifa lépp Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko def ci Serigne Ahmadou Mbacké teel am ngëm-ngëm ci ne ku war a am responsabilité la ëllëg ba tax na euh, fi mu tegoon bëtam mooy jukko yu sell yi Cheikh Mouhamadul Moustapha amee woon moom rek la doon roy ak di ko saytu ak di ko gëstu ak di ko jàng ci wajuram ba tax na xoolul woon bëtu wajur ci moom dafa doonoon dong buy tërbiyewu ngir sàkk ngërëm ci sëriñam loola taxoon na it Cheikh Moustapha teel koo teg fa mu ko tegoon ba daan ko dénk ci responsabilité bu mag a mag boo xam ne jamono ji sëriñ Ahmadou mbakke doone bëkk néegu Cheikh Moustapha boobu Cheikh Mamadou Moussa mooy xalifa général kullu rit te jooju jamono it nekkoon na jamono ju xat ci diggante nasaraan yi ak ñi nga xam ne ñu ngi dikkal sëriñ bi ci dëkkin wu yaatu wu bari lool dañu fay dikk di ay kaadar yoo xam ne fu ne la jógee ci àdduna bi sëriñ Ahmadou daal leen recevoir te it mu Moustapha daan dox ci gox yi léeg mu dem ci mag ñi seeti leen bàyyi ko foofee ca Taïf ci kër ga. gox yooyu mu daan demit bu masaan jógee Taïf responsabilité bi yëpp sëriñ Ahmadou Mbacké moom la ko Cheikh Moustapha di bàyyeel ba am na nettali bu siiw buñ ciy nettali boo xam ne Cheikh Moustapha dafa tukki woon góornóor bu ndar jógee ndar ñëw Taïf di seet Cheikh Maodo Moustapha fekk fa sëriñ Ahmadou ba mu ko fa fekkee sëriñ Ahmadou dalal ko mboolem lu war ci moom ci ay xéewal sëriñ Ahmadou defal ko ko ba mel ne fekk na fi Cheikh Moustapha góor noonu nekk fa ba demam jot mu dem ginnaaw bi wax nañ ne Cheikh Moustapha di tukki ba dem Ndar di gisee góor mu laaj ko sëriñ Ahmadou xam ne wax nañ ne laaj na ko ko ci jataay ba ay yoon ba ginnaaw bi Cheikh Moustapha ñibbisee dana ko yow de xam naa ne boo demoon Ndar góor dana la ganale ngir bàyyi na la xel loola mel na ne teela am responsabilité ci tolluwaay ba mu tolloon ca jamono jooja ak te la bàyyi xel ci ne moom kat euh, kuñ ku ñu wut si la te it kuñ war a roy ci jikkoom la tax na mu daal di teel a roy Cheikh Mouhamadou Moustapha daw taxaw rek ne sama baay la mooy xalifab sëriñ Touba ci këram laa nekk di ko bëkk néegu nu ma neex laay doxee déedéet da daan roy ci jikko yu sell yooyee Serigne Touba tànne woon Cheikh Moustapha ba jiital ko ci kanam njaboot gi Serigne Ahmadou doonoon koo xam ne euh, ginnaaw Cheikh Mahamadul Moustapha dafa jël Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma muy kilifaam mu jox ko boppam bàyyee ko boppam ànd ak moom ci ak bëggam amutut lu muy xool ci lenn loo xam ne lu wuuteeg bëgguk sëriñ Cheikh la looloo taxoon sëriñ seex jël tindoo di jox ko ko muy ak moomeelam mu dël ko fa. nga gis na kon ci teel gee ñeme responsabilité jamono yi ko Serigne Cheikh di jëlee Taïf di ko yóbbu Tindoo di booba ay atam bëreegul waaye ci li ma la wax léegi ne la dafa teel a ñeme responsabilité waaye teel xam boppam teel a gëm na it ab sëriñ du ay dara ak i mbubb jukko ju rafet la ak wax ju rafet ak jëf ju rafet ak fonk sa diine ba mën a defar jaam ñi te lépp suñu borom dogal na ne juróom def na ko ci moom moo tax ba ko sëriñ Cheikh ba ko sëriñ Cheikh jëlee yóbbu ko tindoo Tindoodi boole kook mag ña fa nekk euh, fekk na fa façon bu ne ak taalibe bu ne waaye nag nit ku mat bu la yaree dara du mànk ci yow ba tax na euh, li mu jëlee ci Cheikh Moustapha waaye li mu jëlee ci Serigne Cheikh tax na bi mu demee Tindodi daa boot ñëpp ci njëlbeen ka bi Serigne Cheikh dajalee mbooloo mi boole kook ñoom amatul xejj ak seen ci kenn dafa jël ñëpp def leen ay taalibe képp ku ci néew doole mu di la dimbali képp ku ci jaaxle mu di la lijjanti lu waay bëgg mu nekk ci ak yow. luñ bëgg luñ am mu bàyyi leen ko te lu mu am bokk ak ñoom waaye la njëkk a def mooy xalaat ne ab dëkk jaamu yàlla gi balaa rafet danoo amub teen ngir ñu mën a sell mën a dund dund ku baax mu daal di bënn ab teen ba mu bënnee ab teen yàlla dogal teen ba amul ne teenum ñii la wala koñum ñee la wala ñee daa boole ñépp ak li ko wër muy tindoo deeg nay deeg baalaak kàddak dëkk ya wër tindoo di yëpp seen yitte mooy ku am soxla ci teen bi ñëw def la nga bëgg ba ko defee nag ba teen ba wal dafa daal di tabax ab poste de santé xam ne ab dëkk moom ku feebar faju mënu caa ñàkk moom mu tabaxee poste de santé ba ba noppi jël responsabilité boppam mboolem lu fa war ci xeeti matukaay ak jëmuwaay mu lijjanti ko andi ko fa ngir jaami yàlla yi moom noppee mu daal di tabax ab école daal di samp daaray alquran daal di rëdd jàkk kon mel na ne mboolem lu ab dëkk am ngir lislaam mën faa ñoŋu diine mën faa dëgër ndaw ñi ñu mën leen yar ci seen diine mag ñi mën a liggéey yàlla dogol na da koo daal di samp ca dëkk ba fas yéene ànd ak ñoom ya nga xam ne moo nekkoon ay xat-xat ci wàllu ay tool ngir nit ñi mën ji ci bay di dundee di jaamu yàlla di rafetal seenu dundin mu daal di koy yaatal mboolem lu ci waaye di soxla du la xatal te day daal di jublu ca loola fexe nga am ca sag bëgg ñi nga xam ne ñoom la fa fekk di ay néew doole nga xam ne ci wàllu kër am nañ ci ay jafe-jafe sëriñ Ahmadou du leen a teel taxaw ngir ñu mën a dëppook bëggug lislaam ci seen dëkkuwaay te li mu daan defkat kat daawut ne kii sama taalibe la wala taalibeeb Serigne Cheikh Mbacke la wala taalibeeb kee la déedéet moom ginnaaw yàlla dimbale na nga dëkk tindoo di bokk ci waa gox ba ci ñoo ci ci moomeelam nga bokk ci ay ñoñam nga bokk sa jàmm da ko yitteel waaye it sa dundin wu rafet ci responsabilité la bokk waaye fexe ba nga mën a jàmm yàlla yar sa njaboot it da ko defoon muy responsabilité am ci woon daana gëstu bëggug doomu aadama yi ci fànn yu ne nag daana ci gëstu doo doonoon koo xam ne euh, responsabilité bi nga xam ne jëlee na ko ci Taïf ci ëttu Cheikh Mahamadou mustapha nekkul ne dafa ñëw rek daal di toog di xaar nga ñëw wax ko mu fajal la sa yitte déedéet dafay dugg ci nit ñi da xam seen yitte ànd ak ñoom ci seenu bëgg wàcceek boppam ba tolloog ñoom ba mën a xam yitte yi ba mën koo saafara jikko jooje la làmba woon sëriñ Ahmadou Mbàkke loolee ñu wax Tindodi mu nekkoon fa nekko nekke woon loolu teewu doon fii ci Daaru Xuddoos rôle bi mu fa waroon a suyee doxin bi mu fa waroon a dox ci digganteem ak njabootuk Cheikh Mahamadou gi waaye digganteem ak njabootuk Cheikhul gi fi ne dara manqué wu ci ndax ku xam sëriñ Ahmad xam ne ba mu biñ ko dëlee Tindodi mu am fii kër tuubaa nekk fi di jaabante diggante Tindodi ak Touba yitte ju masaan xew ci taalibe yii ci Daaru Xuddoos ak feneen fu mu mën di doon dañ war koo taxawoo fii ci Daaru Xuddoos Serigne Ahmadou Mbacke moo daan taxawoo loolu. moo daan jullee néew yi moo daan tudd doom yi mu daan lijjanti lu lëj moo daan fajal aajo ko jaaxle moo daan fajal ko tawat lépp Serigne Cheikh da koo tegoon ci loxoom mu da koon lijjanti. ba ci sëriñ Aliou Mbacke ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di xalifay Cheikh Mamadou Moustapha dañ ko dénkoon yitte ji nga xam ne mooy yitte taalibe yi fii ci Daarul Xuddoos mu amoon nag pas-pasu mbindeef musta doxe fenn ba ñëw ci moom ngir aajo te aajo jooju saafara wu ko loolu musul am sëriñ Axma lu waay masa am jànkonteeg moom ci ak bëgg ci ak bëgg wala yitte joo xam ne dugg na ci am noppam wala nga toog ci bër këram di ko jàmbat loola bala ngaa jóge fa nga ne dana saafarawu bu dee lu ñuy saafara ci jataay la bu dee loo xam ne ay dox ak wax moo koy saafara fa mu toog dana la booleek ñoo xam ne loolu doo ngay doon seen yitte ba loola saafarawu ak yitte ju mën di doon nag joo xam ne doomu aadama da ko yittewoo ci ak dundam ngir mu gën a ñoŋal diineem ak taalibeem loolu rek ko ñoroon doonoon nag ku bëgg Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye ku doyloo Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma yëmale ko wu ko woon ak dara boole ci nag mboolem njabatuk Cheikh Mouhamadul Moustapha gi mu defoon leen doomi Serigne bàyyi woon leen xel daan diisoog ñoom doonoon seen xarit nekkoon ci seen yitte fàtte ay yitteem mëtul mësul xalaat ci boppam dara lu dul ñoom lañu bëgg suñ borom dafa saafara loola muy Serigne Sall Serigne Saliou Mbacké moom Cheikh Maodo Moustapha muy Serigne Sall ambassade Serigne Ibrahima Absatou ba ci Serigne Aliou Mbacké mi nga xam ne euh, moom itam mën nañ ne lu bëree bëri ci ci ci xilaafaam Serigne Axmaa ko doon taxaw sëriñ Dan Xarilo ba ci mag ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk nga doyloo woon ko ba. jël sa njaboot jébbal ko tuddee ko doom boole ci ñeneen jébbal ko ngir jukkoom ju rafet joojee nga xam ne moom lañ doon bëgg mu dugg ci biir njaboot gi ba man cee tasaaroo sëriñ Axma doonoon koo xam ne noonu la meloon ci njabootu Cheikh Moustapha jigéen gi boot leen ànd ak ñoom ci seenu bëgg doon seen càmmiñ doon seenum xel doon seeni tànk doon seeni bët yittewoo gu ñu masaan yittewoo te sëriñ Axma xam ko loolu moom jàmmam mooy loole saafaraw doonoo nit koo xam ne ku bëgg ndaw ñi xam la ndax bi mu sañcee ay école dacee boole école yu sëriñ si Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma yii nga xam ne moom la fi sampoon sëriñ Ahmadu bokkoon na ci ñi ko daan taxaw ñi daan taxaw école yi boole ko di jël ay ndaw dafa yóbbu di leen fayal mbooleem lu école bi soxla te mu xam ko daana bokk ci ñay dox loola ngir mu am ko ngir ndaw ñi mën a xam seen diine waaye ñu ñu mën a xamit ne njàng dafa baax ci am réew ngir mooy xettali réew mi ëllëg loolu taxoon na daana jël ay nit di leen yóbbu ci école ba di leen fayal am na ñoo xam ne yóbbu na leen ci école bi di leen fayal ba ñu xëy doon ustaas ci école ba ba xëy doon directeur ci école ba am na ñoo xamante ni ne yóbbu na leen fa di leen fayal ba tey ay docteur la ñu ngi ci hôpital yi di liggéey noonu la doon sampee nit ngir xam ne euh, mboolem li nga xam ne nit ki da koy soxla ci ak dundam ci doomu aadama la ko suñ boroom di jaarale kooku mooy sëriñ Ahmadou Mbacke Tindodi Serigne Ahmadou buñ nee Serigne Ahmadou Mbacke Tindodi day mel ne tindoo di rek la defoon mooy yitteem waaye euh, Touba gii doonoon na fi koo xamante nii ne. buntu kër yi ngay fëgg te loxob sëriñ Axmadu demu fa bariwul buntu kër yi ngay fëgg te xelum sëriñ Axmadu demu fa ba taxawal la fa taxaw ba mu dëgër bariwul ndax euh, wax nañ ne sëriñ Mbàkke Madina mas na ko ko seedeel mas naa wax ne sëriñ Axmadu day lu mu am jox na ma ko musuma laaj loo xam ne yittew yitteem ëpp ca loola seede la joo xam ne sëriñ Mbàkke Madina seedeloon na ko ko sëriñ Abdou Lahat moom sëriñ Touba noonu la ko daan seedeel lu rafet loolu nga xam ne doxoon na digganteem ak moom xamoon na ko ci maandu ak yaatu ak bëgg a dimbali néew doole yi ba tax na bëri na lu sëriñ Abdou daan séddale ci néew doole yi sëriñ Ahmadou la koy jox mu yor responsabilité ba di ko séddaleel te amoon na sañ-sañu bu ko soxlaa woo ko sëriñ Ahmadou fekke ji ko waaye jukko ju rafet joojee nga xam ne moo nekkoon ci sëriñ Ahmadou ak yaatu ga ak bëgg gi lu baax te Cheikh Mouhamadul Moustapha Murtada ku ko xam-xam ne loolu doom moo di nekkoon yitteem mooy xeetali jaam ñi xeetali jaam ñi ci biir ak ci bitti moo taxoon mu jël sëriñ Ahmadou waxtu wu ne daana ko jëlee këram di ko seet sëriñ Ahmadou daana ko fekk tindoo di it dafa yendu ci yendu wu am solo woo xam ne am na ci woo xam ne ñun ñii booba ña nga fa di bëkk neegu sëriñ Ahmadou sëriñ Ahmadou di ko amoon fulla nag te bëgg liggéey ndax daana bay tool yaatu yaatu lool bu nawet bi masaan jot ca tool yi lay yendu mook donga yi lañuy ñuy xéewaloo moom la sëriñ Ahmadou di xéewaloo maaseeg ñoom du nekkat ay taalibe la ñu ma jox ñu nekk ci daara ji di liggéey déedéet bu ñu xëyee ñëw ci tool yi kenn ku ne nekk ci la nga war a nekk sëriñ Ahmadou dana dawalee otam tuuba ñëw Tindodi wala mu dawalee otoom tindoo di dem pole fekk fa donga yi fa lay yend ak ñoom ba waxtu wàcc jot mu soññ leen ñaanal leen bu beneen yoonee mu ñëwaat defaat noonu te da ko daan dëkke nag da ko daan dëkke te daan diisoo ak i jëwrinam mësuleene xeeb ci lenn kum masaan wóolu ba teg la ci kanam daara ji sam xel daana ko soxla daan diisoog yow ci ay yitteem ak yëg-yëgam yi muy dox ci digganteem ak jaam yi ngir loolu da koo royee ci Cheikh Mamadou Moustapha ndax wax nañ ne seex Moustapha daana wax ne bu ma juumee dañu bari juum ndax euh, daana waxtaan ak nit wala nit ñu fasantikoo yu bari yoo xam ne day jotaay kii jotaay ak te benn benn yitte bi lay jotaay ñoom bu noppee soog a dajeek ñoom ci benn barab nag waxtaan ak ñoom loola sëriñ Ahmadou daana ko def ku amoon kóllëre la it ba taxoon na euh, Cheikh Abdou Khadir Mbacke noonu la xaritoog moom noonu moom euh, jamono yi nga xam ne ci la jëlee tiwo bi jógee Touba dem Baxdaat sëñ Abdou Khadir dafa waxoon ne bu fekkee ne tiwo bi Baxdaat lay yem bu mu egsi bu mu bu mu bu mu ñëw xam ne day jógee ba Touba ñëw Baxdaat jógee Baxdaat ñëw Tindoodi ngir lan jox cër gu mu joxoon si Ahmadou Mbacke Tindoodi ab cër sëñ Ahmadou noonu la meloon ci bëgg liggéey daana saytu nit mu wóor ko ne kii. liggéey doo nga la yitteem jépp mooy mu qualifié ci lam bëgg daana saytu nit mu wóor ko ne kii am njàng dong la man yitteem jëpp mooy kii am xam-xam ba ubbil ko daara wala mu am xam-xam ba egg fa nga xam ne fa la kaadar yegg ndax euh, amoon na benn élève boo xam ne defe naa euh, mujjoon na nekk sax ci hôpital bii nga xam ne mooy Matlabul Fawzayni te bokkoon na ci cadre yi sëriñ doo ko taxawu fayal ko njàngam noonu la taxawoo ñeneen taxawaay boobu sëriñ Cheikh amoon ci taalibe yi nga xam ne ka nekk ca tool ya dana am xam-xam ba buñ noddee mu mën a dem ca juma ca jàkka ja jiite delluwaat ca tool ya ministre bi buñ noddee mu mën a dem ca jàkka ji jiite dellusiwaat rôle rôle boobu rek la sëriñ Ahmadou doon doxal moom la doon bàyyi xelit xam ne jaam bi wurta xeeb boppam war naa mën a fexe ba li ko lislaam sant mu nekk ca xam ne ab jullit la waaye li réewam soxla ci moom it mu am ci pas-pas te xam ne ab citoyen la dafa am devoir am droit bu fekkee ne nag dangaa def say devoir ba mu mat say droit mën nga koo kaas sëñ ma dafa bëggoon koo xam ne moom day xam ne kii kat ab sénégalais la tey daa am ci réew mi wàll waaye wàllam nag mi ngi koy tàmbalee ci jàng ak liggéey pas-pas bi nga xam ne moom la réew mi soxla ci moom bu fasanti koog moom ba mu dëgër su boobaa lam soxla ci réew mi dana ko mën a kaas noo ne moo nekkoon ak bëggam ba bëgguloon ku yaafus bëgguloon ku tayeel bëgguloon it koo xam ne dangay ngay ñaaw njott ci sa bopp fu na ngay toñ toñu jëm fa daa bëggoon ko am fayda koo xam ne li nga nekk danga ci nekk rek te yàlla tax am ci fulla am ci fayda lépp loo ci nekk it fu ca lu mbaax yam lu baax fu mu fa yem rek ca la nga nekk nga yem foofu waaye nga am yitte ju kawe it ci li nga bëgg ndax yitte ju kawe dana may jaam bi lam soxla yitte ju kawe joojee tax boo dellusiwaatee ca ginnaaw ci ci liñ wax ci tayif ci moom teel a yitte woo yitte ju kawe xam ne responsabilité nga koy xaar ëllëg ci ak dundam tax na mu teel a am yitte ju kawe ci luy xettali jaam ñi euh, mas na maa fekkee ab jataay boo xam ne dafa am ñu amoon jafe-jafe ba waroon a dem tribunal ñu àtte leen bi ñu dikkee ci sëriñ Ahmadou Mbacke bi kenn ku ne waxee dafa joxañ ki tooñ na ko yaa tooñ sëriñ Ahmad ñun diirub liñ nekk ci moom ab taalibe wala ku mu yor sa responsabilité ñu la yóbbu gendarmerie di la àtte tribunal bariwul woon luñ ko doon gis ndax amoon na fullay ñaar ñu mu dajale ngir seen jafe-jafey bopp ku ca tooñ ca saase la la koy wax te it Mustafar ko tooñ nag dëgg rek la soxla woon dëgg moom dafa nekkoon ci kanamam ba tax sax daan bëri ñoo xam dañ naan dafa naqari daret wala dafa tàng fekk na déedéet dafa dafa dafa bëgg dëgg dafa ragal yàlla dafa dafa dafa am dafa am xol bu yaatu boo xam ne bëggul kenn gaañ sa moroom ndax xam na ne jaam ñi ëllëg àtte ba gën a metti ci ñoom mooy seeni xàq te xàq ji nga xam ne jaam ameel na ko moroomam responsabilité moom mi nga xam ne mooy kilifa ak jaam ñi ñu di ko déglu tey dégg ay ndigalam moom am na ci responsabilité looloo waraloon ñu naan dafa tàng fekk déedéet tàngoor wa mooy defar jaam ñi ndax boo bëree ay tappale walla nga bëri looy tooñ wala nga dëng doo jubóog moom ndax waxtu wu ne ci li lay jubal lay nekk sëg bëgg moom bala ko def da ko wóor na yow mi jub nga yow mii tege nga ci aw yoon yow mii yaa ngi sellal ci say bokk yaa ngi nos doonatoo koy tàggaleeg mbokk doonatoo koy yàq doonatoo koy ràmbaaj mu soog a jóg nag ci sa bëgg pour saafaraal la ko waaye li fi ak loolu nekkoo ca moom ku tàng la ci yow ndax la lay jubal ak la lay defar rek ca lay nekk loola nag da koo jëlee ca kilifa gu tedd googee nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Moustapha ah, sëriñ Ahmadou li ma ne la ku fonk kóllëre la woon mooy mag ñi nga xam ne danoo àndoon ak sëriñ Cheikh te ba ko sëriñ Ahmadou ba ko sëriñ Cheikh di yóbbu tindoo di mu fekk leen ñuy ay mag yoo xam ne daanaka seen a sori na lool euh, sëriñ Ahmadou daana leen taxawu daana leen toppatoo daana leen jàppale ba bëri na ci ñoo xam ne seeni taaw li ma wax léegi sëriñ Ahmad leen inscrire ci école yi dugal leen fa di leen fayal ndax jamono yooyu ñoom seeni waajur amuñu doole ba mën a taxawu seen bopp Euh, nekkoon na koo xam ne it ci ndimbal loolu waxtu wii ñuy waxtaanee masaan jot muy diggante dix-neuf heures ba vingt heures ginnaaw timis day toog ci banc bi yor cartable bi nit ñi dañuy ñëw du la noo tudd du la foo jóge boo taxawee ba déy ko liñ koy déy mu yëkkati jox la bu demee ba yoratu lu mu joxe mu fattu waaye li feeg mi ngi yor lu joxe moom jaam ñi di ko gis loola it lu mu daan saxoo la nekkul na da koy def semaine bi semaine bee ñëw mu bàyyi ñun diirub liñ ko xam diirub liñ ko xam loolu moom dañ ko cee xam dawut nangu it ku tëju buntam ngir nit di ko xaar déedéet boo dikkee da ko fekk ci mbaar mi ci ëtt bi wala ci saal bi wala ca kuur ba ca ginnaaw walla boo toogee diir bu gàtt mu génn wax ak yow bu tëddee sax lu xaw a yàgg tuuti néewoo ko nit ñëw na fi dana la woo laaj la ba xam ndaxul amul ku fi ñëw di ma seet musul xool it jógee wala fukkee jóge jógee nit daana jógee ba euh, Kolda walla nit jógee ba Sédhiou du xam fu mu bàyyi ko bu ñëwee sëñ Axma dana ko tatagal dalal ko lay yitteem lay àqam dana ko ko jox nga xam ne loola bokkoon na ci demoon na ba fu ne la am turandoo fu ne fu ne sëriñ Axmadu Mbàkke am na fa turandoo ku ne daana ko bàyyi xel te di ko seet si noonu la daan jël engagement ci ab dongaam buñ ko jox wala turandoom buñ ko tuddee wala ku ko sopp dikk ba gaaral ko ko dana la jox yitte ju réeréeréerée joo xam ne yow boo gàttee xel da ngay foog ne sëñ du moom yitte ji ma la jox yow rek la ko jox yow rek la bàyyi xel kon sëñ Ahmadou Ndiaye eh, dañ lay delloo kàddu gi rek tuuti incha allah <laughs> defee ñu defee kii incha allah jërëjëf sëriñ Ahmadou wax ji fa tabaarakallaa leer na nañ ndax mel na ni li ngay wax du looy làmbatu looy dund la mu mel ni suñu déggee ci fi nga àddoo fépp daa ngi xam ne jaamu bi yàlla ngi nii bu nangu ak njaam ngi xam ni ab jullit a ngi nii bu rafetal ak jullitam ngi ci xamee itam ni taalibe Sëriñ Tuubaa ngi nii bu ko gëm te doyloo ko daañ ca jàng itam ni ku yéene ñëpp jàmm ngi ni nga xam ni bayitu Sëñ Tuubaa woow yi muy wax ni tuuba li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati jëm mi Sëñ Ahmad Tindo di mën na ko firi te loolu taalibe yi dañ cee war a roy xam ni foofa mooy yoon wa danañ jàng ci biir wax ji itam nit ku woyof ngi nii ci jàng ci biir wax ji nit ki mën a muñ a ngi nii daañ jàng ci biir wax ji ni nit ku tabe daañ ci jàng itam ku lewet daañ ci jànge as gor daañ ci jànge itam ku dégg ndigal daañ ci jànge nit ku laabiir yooyu yëpp feeñ na ci waxtaan yi te loolu mooy jikkoy sang suñ ko dee waxtaanee jikko yooyu doon ay bind yoo xam ne noonu dañ ko war a nafar ngir jariñoo ko yooyu lañ lañ bëgg mu génn ndax sëñ Moussa dafa daan wax ni fu baax ne ku baax ko fa yóbbu waaye nag bu fa saxee ab defarkat a fa nekk mu mel ni mag ñi seen jaan wàcc na lañ waroon a def def nañ ko fañ waroon a taxaw fépp taxawaay taxaw boobu mat na noonu lu ñëw seen gannaaw dëkke seenub gent yor seen dono di tedd ci seenub liggéey di sago ci seen barke war nañ leen a sàmmal seen ndono te seen ndono li mooy fii ñu jaar ci seenub dund lii nu fi bàyyi muy ay jeexital nu war koo conserver ba man koo jariñoo waaye mën a fexe itam ba suñ njaboot jariñoo ko loolu moo tax nu doon tënk jataay bi bu ko defee sëñ ma ñu bàyyi la wax sa kàddu yu mujj nu yëkkati jataay bi jataay bi am na solo trop waaye toujours li may wax rek mooy buñ ko yéem nañ ko barkeel buñ ko barkeeloo waaye nañ ko roy su kàddu sëñ ma daanoo kenn ku ci nekk xoolal la nga ci mën roy ci ay jikkoom nga tàmbali bu booba mokkee nga jël beneen su matee néewuma ko roy danga mel ni moom waaye fu ñu tudd ñu baax des na la tudd kon suñu wax ma bisimilah. jërëjëf sëriñ Amadou mu mel ne sëriñ Amadou Mbacke mi ñuy waxtaanee comme ni nga ko waxee léegi rek danoo war a bàyyi xel jikko yu sell yi nga xam ne yàlla dénkoon na ko ko ak rafetal gi nga xam ne waxtu wu ne ci la doon bàyyi xel ndax ñun li nga xam ne ci lañ gën di xalaat waxtu wu ne mooy mag yi sëriñ Tuubaa yi ni leen joxewoon seen la leen sëriñ bi ba defaloon ak ni mu leen ko nangulee woon magi Daaru Xudoos yi ku ci mel ne Baye Man Njaay ngiraan man ci kanam sëñ Ahmadou Mbàkke laa ko njëkk a mu doonoon koo xam ne bu gisee ab taalibe da koy jox wàccuwaayam wa mu yellool bu jaree sax mu jóg fa moom ca biir ab diir ba ñëpp xam ne kii sëñ ma jox na ko lim moom mu dellu si waat ci mbooloo mi nga xam ne wàccuwaay yi xeeti wàccuwaay yooyu euh, lu mat a bàyyi xel la nit amut lu mu la ko yàlla sédd te sëriñ Ahmad daana ko jox jàmm te ku bëggoon ku bëggoon ko am kilifa la ba pare daan jëfe ndigalam mosul bëgg kuy benn sa kilifa ak ku mën di doon bu ko wóoree na yow mii nii doxoo ci kilifteef moom mënatoo am ci moom xar kanam gu leer li fi dellu si woo ba mu wóor ko ne yow mii ku am kilifa nga kuy dox ci bëgg sa diine nga wala ak taalibe te it woon tariixa si nga xam ne woon tariixa maanaam kii murit la wala tiijaan la wala lii la duma ma dox ay yitteem du ko saafaraal la mu bëgg déedéet si nga xam doxut woon ci yooyu ndax boo xoolee ni mu xaritoo woon El Hadj Moustapha Cissé bu Pire ak ni xaritoo woon ak waa Tiwaawoon ñenn ñi ak waa Njaasaan nga xam ne loolu li ko waraloon mooy maanaam moom nit ki ginnaaw ab jullit nga rek gëm nga yàlla yaa ngi koy jaamu ci moomeelu Seexul Xadim nga bokk ndax Sëriñ Tuubaa muridullaahi la wax teyit nawloo gi Seex Mustafaa nawloo woon ak nit diine yi fi nekkoon daa daa desoon ci jëmmam ba musul woon am ku muy xejj ak ku muy seen ay atam yu mujj ci la am mbayam gënoon a nangu waaye musul dugal këram dugubam wala gerteem wala nangamam day jaay gerte ga jël ngooñ mu saf ko ci ay kabiyon dem joxe ji ko dugub ji mu saf ko ci ay oto jox ko jëwrin Sëriñ Ahmadu Jaxate Mendu wala ñeneen ñu tasaare ko ci njabootu Cheikh Moustapha gi njabootu Sëriñ Tuubaa gi noonu la doon doxee lam daan dundee ci biir këram lu muy jëndee ca marché ba la waaye du la donga yeebee te amoon na xemmemteefu mboolem lu am daganal teñ di ko bay amoon na xemmemteefu di ko bay di ko jox jaamu yàlla yi nga mel ne kon ku daan jaamu yàlla la ci jaamu yàlla yi yàlla ñu ko suñ borom fayal ku bañoon kuy néewal doomu aadama la ku ko bañoon la boo masaan néewal doomu aadama ba mu yëg ko kooku am na sens ndax dana ko jàpp jàppale ko ba yow ma koy néewal da ngay am problème loola nag jukkoy sàng la euh, xëy na liñ bëggoon a wax lépp duñ ko mën wante noo ngi sant bu baax mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu di nuyu sunu waajur soxna maam xari Jóob mi nga xam ne mooy sunu mooy sunu waajur ca bañ ñu fa joxee xamaguñ dara ba fii ñuy wax ak di dem ca moom kanam gañ gi doon gis moom booba moom la ñu gisaat ci moom lu jafe soxna maam xëri kanam nga doon gis ci moom ba ñu doog a dem sëñ Axma ba fii may waxeek yow nii nii bu ñu toogee moom moom la ñuy gis ci moom ku dul soppeekoo ngi noonu yàlla na fi gën a yàgg te gën a wér. di siyaar bu baax Serigne Cheikh moom Serigne Aliou Mbacke ak mboolem njabootu Serigne Aliou gépp euh, di siyaar Serigne Moustapha mii nga xam ne mooy taawu Serigne Amadou Mbacke mu Serigne Aliou di ñaan yàlla oyofal yan bi ci kawam. di masawu coono mboolem donga yi di leen soññ rek di soññ sama bopp foofu lay daanale sama kàddu ci kóllëre gi nga xam ne am nañ ko suñu diggante ak moom ndax ànd ak sëb sëriñ mu bàyyi koo fi euh, bàyyiwu fi doom waaye bàyyi na fi doom nga toog ci këram topp ko waxtu woo duggee ci kër ga mel na yaa ngi jàkkaarloog moom loolu la yàlla soxla ndax mooy jëfal yàlla daara ji nga xam ne ñoo ngi koy taxawal muy daaray alquran ci tindooti te ñun ñi nga xam ne ñoo jaaroon ca daara ja di ko defar loola it nañ ci bàyyi xel te xam ne sëñ du Mbacke ku bëggoon alxuraan la te loolu rek moo nekkoon yitteem yar ndaw ñi jàngal leen kon nañ ci bàyyi xel bu baax noo ngi leen di sant di leen gërëm di sant sëriñ mbàkkee Dieng mi nga xam ne moo amee liggéey bi di ko jël ci doxalin wu am solo wi ak mboolem ñi mu ko nekkal di la santaat bu baax sëriñ du Ndiaye te di la jaajëfal ci taxawaay bu am solo bi di ñaan boroom ñu yàgg ànd liggéey bi. bis bii nga xam ne moom la ñuy waajal ba tax ñuy def waxtaan yii lépp luñ ci jëf yàlla nañ ci dëppoo ngërëmal sëriñ bi euh, di sant yàlla bu baax te di ko santaat li sama bàyyi daan wax naan ndokk bañ ci jiitoo ndokk bañ ci jiitoo yàlla na nu sëriñ bi nangul teñ sax ci di ko liggéeyal te suñ borom defal ñu fan wu gudd lool wu ànd ak wér ba luñ bëgg liggéeyal sëriñ bi ñu liggéeyal ko ko ci barke Cheikh Mouhamadou Moustapha wassalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Axma ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm ci am solo go am waxtaan wi am solo di sant itam bokki taalibe yi nga xamante ñoom lañ seqal kër gi di sant itam njaboot gi nga xamante ne ni ñoo la yebal ci li sëñ Mounou Sa daan wax rek ni bu leen tas yaakaar bu leen fecc ci kóllëre te mel na ni këleen bàyyi ca kër ga amoon na ci yéen yaakaar kóllëre ga ngeen fasante woon ak moom it yéen a ngi dox di ko sàmm. ndax kër ga it ku fa dugg buñ ne la sëñ bi bàyyiwut doom doo doo ko mën a gëm ndax yeneen kër yi ci des ni muy dunde noonu la kër gay dunde ñu ngi ñaanal bu baax a baax sëñ Ahmadou Aliou di ñaan suñ borom yokk ay leeram te muur ko mbalaanum sutura lii mu fi bàyyi itam yal na suñu borom sàmm te gàttandu ko ba yaakaar ji ñu am ci moom suñu borom def ci lu kawe njort di sant bu baax a baax sëriñ Cheikh Mbacke Aliou mi nga xam ne mooy njabootuk soxna xarimam mooy seen kilifa ñoom ñëpp ñu ñaan suñu borom guddal aw fanam te dëgëral ay taxawaayam waaye nu ngi sant bu baax a baax fa waxtaan yu am na solo nan ko jariñoo bi jaayi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaan ci barkeb ñu doon waxtaanee mbas mi yàlla na ko fi suñu borom jële te indi fi naataange indi fi xéewal ak jàmm ju sax dàkk barkeb Sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala